ana ñu amoon njàqare ci wàllu accessoire de téléphone njàqare jeex na Mbakol Store ñëw na ngir yéen andi leen accessoire de téléphone yu mucc ayib ay ak marque originale AirPod AirPod 2 AirPod Max casque Bluetooth ak powerbank andi na leen itam ay watch original Ultra 7 waaw Ultra bi nga xam ne boo demee ba Mbakol Store ci njëkk yu xéwale ñu jaay la watch may la AirPod boole kook set bracelet waaw jaay la watch may la airpod boole kook set bracelet waaye yemul foofu ak yéen andi na leen itam watch H13 bi nga xam ne fonctionnalité yi maanaam ni mu mel copie conforme la ci série 9 45 millimètres Mbakalo store nag mi ngi nekk ca Grand Yoff cité millionnaire mu ngeen woote ci numéro yi 77 092 60 89 wala 76 124 39 43 livraison fépp ci Sénégal Mbakalo store wootee léegi commandé léegi ñu livré la léegi léegi. Israël tontu na waa Yaman tey jii bombardé port bu am solo ci am réewam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu auditeurs yi Mouhalim FM ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar tey gaaw fukki fan ak ñeent ci weeru Tamxarit dëppook ñaar fukki fan ci weeru Soulier. jamono ji ñuy wax ak yéen 23 heures di fukki waxtu benn ci guddi toftal na fukki simili waaye di wax ñu bëgg a ci groupe Mouhalim ci numéro bi ngeen di jaar 78 304 58 99 78 304 58 99 fan yii ñu génn waxoon naa leen ni waa Yemen di ansaarullah xawsi yoon yi dañoo bett waa Israël ak seen capital ak benn attaque de drone bu jur ku ñàkk bakkanam ak ñu am ay gaañu gaañu seen capital ba. loolu yi nag ñu defoon Israël tontu na leen tey jii ñoom itam daal leen di bombarde am na benn port bu am solo ca Yemen nga xam ne sax ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi ñu gouvernement bu bu Yemen kon. ñoo ko daal di euh, contrôlé muy euh, port bu ñuy wax ba Israël kon daal nañu koy bombardé tey jii daal di koy bombardé moo daal di tàkk lii loo xam ne kon fës na lool ci côté say xabaar tey jii bi nga xamee ne mbir moom yi am na ki nga xam ne moo di Benyamin Netanyahu daal dinay génn wax daal ñi nga xam ne ñoo di xaw si yoon yi ñoom dañoo bokk ñi nga xam ne Iran ñu nekk seen ginnaaw di leen xambu comme ni mu koy defee waa Hamas ak Hezbollah feneen itam ki nga xam ne moo di Netanyahu itam daal wax ne opération bii ñu def ñeel ñee nga xam ne ñoo waa Yemen message la bu ñuy yónnee mbooleem ñi nga xam ne kon ay ennemi lañ mooy ñi nga xam ne ay noon lañu ci waa euh, Israël loolu Benyamin Netanyahu daal dina koy wax ginnaaw bi itam Yoav Gallant mi nga xam ne weer wàllum euh, défense bu réewum Israël nee daal takk-takk yi nga xam ne kon am na tey jii fële ca Yemen mboolem ñu nekk ci Moyen-Orient yëg nañu ko ñoo ngi xamal nag ñëpp daal saa yoo xamee ne xaw si yoon yi euh, attaqué waat nañu Israël ñoon tamit dañu daal kon daañu leen tontuwaat ci ay bombardement ndax xaw si yoon yi kon lii ñu leen def dañ leen daal tont ci lu ñu defoon yemu yemu ca waxaat na feneen daal ne xaw si yoon yi kon attaqué na ñun waa Israël lu ëpp ñaar téeméeri yoon bi ci mujju mooy bi ñuy def bu jur bakkan bu ak ñu amee gaañu gaañu ci citoyen yu réewum Israël kon faw ñu tontu leen. vice président de l'autorité des médias Ansarullah kon xam xamle ci Al daal ne ñun de lii ñu nekk dañu ko dakkal de lii ñu nekk suñu digganteeg Israël di jàppale Palestine du ñu ko dakkal bu Israël jàppale daal ciblé ay station service yi nekk fële ca Hudayba day tax daal kon li ñu nekk daal di koy bàyyi kon day nax boppam lii kay daf ñu sax yokku motivation ñu gën a kon fës wéy ci li ñu nekk kon daal ñoom nee ñu kon du ñu dellu ginnaaw benn yoon ci lii ñu nekke ba tey ki nga xam ne kon ah, moo di ah, Benjamin Netanyahu yeneen kàddu yi mu waat daal di ah, ginnaaw kon redd yi nga xam ne Israël def nañ ko tey ci port bu ba nekk fële ca Yemen ne daal ku man doon ci àdduna bi rek koo xam ne da nga attaque Israël daañu la dana dana dana dana dis gann ci yow comme ni ñu def tey jii ñi nga xam ne ñoo di waa Yemen ki yor kàdduk ansaarullah di waa Yemen porte parole bi daal dina yëkkati kàddu ginnaaw li am ne daal ñun daañu tontu Israël tontu gu mag a mag a ginnaaw attaque bi ñu attaqué tey jii port boo day ba te ñi nga xam Israël daal ne ko ñun jàppale gi ñu jàppale waa Palestine fee ca na xam ne lii mu def tey daañu ko tontuwaat tontu gu taratar te nag ñun jamono ji ñoo nekk ci waajal xeex bu taratar suñu digganteeg waa Israël lool moom béyobu ñaar di ko xam te nag ñi ngi wax ne daal ah, am na ay warab yoo xam ne ca Israël nañu xam ne kon nekkatul warab yu siir ña fa nekk nañu xam ne daal seen bakkan mi ngi ci xottu gerte loolu la yoon yi wax kon jàppale jur maalime ko ab guerre ubbeeku waat na ci diggante Israël ak beneen ah, front muy xaw si yoon yi ci jamono jooju itam bu sukkandikoo ci yedi xoot yedi xoot aaronut kon nee na am na explosion yoo xam ne dégg nañu ko ci ville bi ñu wax Iliab nekk ci sud bu Israël ca bande de Gaza fi nga xam ne fa la xeexoo yi am jamono ji ñi nga xam ne kon ñoo di soldat yi réewum Israël ñoo xam le kàddu yi ñu sukkandiku ci doon aso yéen doon aronot ñoom day ñoom daal nee ñu ah, xeex bi ñuy xeex ak nee na nee ñu ay soldats yu réewum Israël ñoo wax lii nee na combattant yu waa ah, ah, yu Hamas yi ñu naqare faat lañ xeex ñoom lu compliqué la ndax daal nee ñu léeg-léeg da ngay bombardé benn barab ba yaakaar nañ ña fa nekk faatu nañ ñu génnaat di dox da ngay bombardé barab daal ba jàpp na ñoom ñii moom jeex na dañuy de ñu ñu jugee ci suufu décombres yi ànd ak bakkan di dund loolu daal nee ñu kon xeex ak ñoom ñi waa Hamas lu jafe la ki leen lool yi mooy yenn wut xawoon nee na mi ngi ko jëlee ci ay soldats yi réewum Israël waa Pakistan. Pakistan day nee ñu waa Israël li ñuy def fële ci bande de Gaza ak ci Palestine crime de guerre dëgg la Benyamin Netanyahu ak lu muy def daal nañ ko boole ke ñi nga xam ne kon ñoo di waa ay terroristes loolu la waa Pakistan xamle tey jii ñi nga xam ne ñoo di euh, euh, kilifa yi kilifa yu waaw ñi nga xam ne kon ñooy kilifa yu Yemen ñoo xam ne kilifa yu Yemen ñoom tamit mbir mi yëkkat nañ ci kàddu daal di wax daal wax daal Israël li mu def ñaaw na te ñoo ngi koy ñaaw te mbir la moo xam ne mu jégg dayo la ndax yàpp ne daal lee mu def fee tey jii acte de terrorisme dëgg la mooy ñi nga xam ne kon ñoo gouvernement bu Yemen rek kon ñoo wax ci mbir mi jàpp ne daal lii Israël def kon agression dëgg la te def ko foo xam ne euh, daal ndax Israël fa mu laal jàpp leen Israël fa mu laal tey loola dafa dëkk bokk ci li nga xam ne gouvernement bu Yemen ñoo ko contrôlé xam ne xam ngeen ne Ansaarullah ab groupe lañu rek donte am nañu doole ci Yemen ñoom ñenn ci àddina bi sax ay terroriste lañu jàppe waaye Yemen am na gouvernement léegi nag port boobu ñu laal tor bu am solo boo xam ne ñoom waa euh, euh, benn maanaam dafa bokk ci nekk ci fu am solo ci réewum Yemen di port boo xam ne tam bu bari njariñ la foofu la Israël kon tey jaari bombardé waaye nag waa Ansaarullah day nee ñu daañu faywaat ñoom itam fay gu tar te ñoo ngi wax sax nag ñi nekk ci lenn ci ay ville ne daal ne nekkuñ ci karange booy boo ñu moytu euh, kon loolu mooy tontu Israël lu mu tonte ji waa Yaman fële ca euh, ci benn port bi ñu wax Odeba ginnaaw kon attaque guñ leen attaqué woon fan yii ci seen réew ñoom Israël bi ñu fay bakkan kon jàpp leen Israël ginnaaw digganteem ak diggant digganteem ñi nga xam ne ñoo di waa Hizbullah digganteem ak jihaad islamique digganteem ak ñu nekk ca fi nga xam ne moo di ca Cisjordanie occupé léegi nag ab guerre daanaka ci dëgg-dëgg nag lu ubbi ci digganteem xaw si yoona yi te nag ma xamal leen ne ñoom ñoo ñuy waxoon naa leen ne duñu añu ndaw ndax ku mën a jëlub drone lancé ko dépp Yemen mu ñëw ba ca Israël faat fa bakkan ñoom Israël wax ne kat seen ay système gisoon nañu ko waaye erreur humaine moo tax mu def la mu def kon Israël ñi mu jàmmaar lool fi ne du lu yomb donte nag moom ma ngay wéy di faire face ak ñoom ci jamono joo xam ne nag démb Anthony Blinken day waxoon na ne ci diggante tuuti rek moo des ñoom am ak déggoo Anthony Blinken nee na tuuti rek moo dox ci diggante Israël ak Hamas ñoo am ak déggoo amal cessez-le-feu su ko defee ñi nga xam ne ñooy otages yi Hamas bay leen loolu day Anthony Blinken waxoon na ko démb ñi ngi wéy di ko topp Mouhalim Info taamu leen seen groupe Mouhalim Info ak sunu ay mbooleem plateforme Mouhalim TV mooy sunu chaîne YouTube lépp luy information générale religion politique culture société Mouhalim Info moo leen koy traiteel ci anam yu fiable leer na wóor na boole ko gaaw na l'information sur sur Mouhalim TV ba tey mën ngeen abonné sunu page Facebook ngir lépp luy information waaye tamit Mouhalim moo ngi TikTok ngir lépp lu jëm seen ay information da ngeen koy am ci sunu mbooleem plateforme saa su ne